أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعن يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن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 di sante yàlla tabaraka wa taala mi ñu may ñu fekke waat suñu lu darsu ci albayquniya ñaan yalla lepp luñ tàmbali ci lu baax mu may ñu ñu àggali ko te mu nangul ñu ko ci barki bi sallallahu alayhi wa sallam darsu bu njëkk bi jotu ñoon trop lu aju ci fann bi ñuy jàngale muy mustalawul hadith waaye ginnaaw gi taliqati kilifa yi def daanaka motale na lepp ndax taamu nañu sax fànn bu nekk ku koy jàngale nga xam ne lan mooy mbiru fànn boobu lan mooy njëriñam lu tax nit war ko jàng ak ban dayo la am ci diine loolu dañ koy sopp bu ko defee nga wax ci bu baax dina ñaax ñi koy topp waaye taaliqaat yi daanaka mottale leen lépp ndax mu mustalool xadis mooy loo xam ne dañ ko teg pour nit ki mën a jaar xam xadis bu wér bu ñu nangu ak hadith bu doyde bu ñu delloo ak itam dayuk wir yi naka la féetante kaw ndax waxon nañ ni amna yo xamne sahihun bi zaatihi lañ koy wax moy hadith bo xamne ne dafa wér mom ci boppam soxlool kenn diko dimbali pour mu nek hadith bu wér moy biñu ñëkkon jang abda musalliyan ala muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhimin aqsamil hadith idda wa kullu wahidin ata wa mu indi la nag awwaluha saxihu wa huwa mattasal isnaaduhu wa lam yashiz aw al yarwihi adlun baabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi mu ne la xadis bu wér mooy boo xam ne ñii solo xadis bi ku nekk ci ñoom dangay nekk nit ku maandu maandu nag buñ ko waxee ci fànn bi mooy koo xam ne jullit la euh, te dafa am bañ ak rus maanaam dafa am yu muy jombale boppam daal critère bu yaatu la ñu te ci loolu itam boroom xam-xam yi dañoo uute ci nu ñuy maanduloo nit am na ñoo xam ne dañu tat lool ni ñuy seggee ba wax ni diw ku maandu la aadil am na ñoo xam ne dañu diggu doomu am ñoo xam ne itam dañ ko xaw a yolomal waaye amaan na bu ñëwee ci beneen téere dinañ gën a yaatu ci yooyu ndax téere bi daanaka boo noree détails yi lépp darsu bi dafay mujjee compliqué ci ki koy déglu dafay mujjee jafe ci ki koy déglu moo tax ñuy taamu di ko yombal ñu war jël tey alxadis alxasan ndax bii passé ñu ngi jëloon xadis as saxiix moo tax boroom téere bi ne tey wal xasanul maarufu turkan wa gadat rijaaluhu laka saxiix ishtaharat wa kullu ma an rutbatil xusni qasur fa huwa daifu wa huwa aqsamul kusur incha allah ñu jël masala boobu tey téere bii di albayquniya nag bëgg nañu képp ku koy jàng nga fexe koo mokkal ndax loolu lañ ci gën a taamu yomb na mokkal ndax woy la rawatina ci bi biñ ko tëggee ku ci def tuuti yitte rek diñ ko mokkal incha allahu bi ni ñuy def nag mooy dañu jàng yax bi bu ko defee kii bëgg a mokkal bu koy déglu lu bari incha allah di ko baamu dina ko mokkal du ci am benn coono borom téere bi dafa ne أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث إدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يؤل يرويه أدل ضابط عن مثله مؤتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف تركا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa daifu wa huwa aqsaamul kusur kon lii dafay jar bàyyi xel bu baax a baax ñu ñëw tamit ci benn leeral bu ndaw rek mooy des fois ngay dégg na ak sanat sanat boo ko déggee mooy góor ñi soloo xadis bi jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ ci jël benn misaal pour mu gën a jege boo demee ci saxihu muslim ñu jël ci benn xadis bu jege rek mu ne xaddasani zuhair bun harbin kenn mu ngi noonu muy zuhair xaddasana jarir muy ñaar an us an umara muy ñett an abi zur ata muy ñeent an muy juróom juróomi ni a ngi nii juróom ñi ñoom ñooy sanatu xadiis bi zuhair moo jëlee ci jarir jëlee ci umara mu jëlee ci abi jour zura mu jëlee ci kan abi horeera te kon am nga juróomi nit juróom nit ñii ñoom ñooy sanat moom laa la ci xadis ci leçon bu njëkk bi mooy numéro jëlee ci numéro 2 numéro 2 jëlee ci numéro 3 numéro 3 jëlee ci numéro 4 nag ñi yëngu ci wàll bi dañu xool ndax moom abi zura est-ce que déggee ci abi la ñu moom mooy kat ñu jox ko benn àtte ñu xoolaat abi zura est-ce que umara jëlee na ci moom ñu ne waaw ñu xoolaat ndax est ce que jarir jëlee na ci moom ñu ne waaw ñu ne est ce que zuhair jëlee na ci moom ñu ne waaw loolu moom mooy góoru sanad bi mooy xadis bi mooy càllale gu jokkaloo bii dañ ci jël misaal rek mooy numéro 1 jëlee ci numéro 2 numéro 2 jëlee ci numéro 3 ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy sanad léegi nag mat matnu boo ko déggee mooy abi hurayra dafa wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salluuni ba xadis bi jeex loolu mooy mat mat matnu mooy yax bi nga xam ne moom la ti bi wax wala moom la saxaabi bi wax euh, pour nga xàmmee ko yow mi topp darsu bi waroon nañu itam ñëw ci leeral lan mooy saxiixun li zaatihi lan mooy xasanun li zaatihi lan mooy kii waaye loolu mun nañ xaaraat ba yeneen darsu yi di ñëw incha allah rabbi ak beneen laaj bi nga xam ne am na mbokk bu ko doon laaj xadis naka lañ leen di peese ban mooy ci ëpp doole boobu ci tontu bu gàtt rek mooy xadis boo xam ne Buxaari soloon na ko ak muslim ñoom ñaar ñu dëppoo ci mooy muttafaqun alay yi ngay xaral di dégg xadis boobu mooy ci ëpp doole ci ñun ahlu sunna wal jamaa ginnaaw loolu mooy xadis boo xam ne Buxaari kese moo ko solo te muslim nettaliwu ko ginnaaw boobu mooy xadis boo xam ne muslim kese moo ko solo te Buxaari nettaliwu ko ginnaaw loolu mooy xadis bu ñëw ci charte Buxaari ak muslim ginnaaw loolu mooy xadis boo xam dafa ñëw ci charte Buxaari ginnaaw loolu mooy xadis boo xam dafa ñëw ci charte muslim kese charte muslim ak Buxaari itam des fois nga faral di ko dégg waaye lenn moo leen utale Buxaari yi moom dafay chartal même bu fekkee jamononte nga ak nit dafay chartal nga mu am firnde bu leer naññ ni mus nga dajeek nit boobu ba déggee ci moom xadis waaye muslim moom dafa wax ni boo jamononteeg nit rek moom boo waxee ni jëlee naa ci diw moom dafay dégg sa xadis ci gàttal léegi suñu a suñu darsu tey borom téere bi dafa wax ni ginnaaw bi mu di jàngalee al xadis as mooy xadis bu wér ci jëmmi boppam mooy càllale gu jokk ñu jëlee ko ci ku maandu euh, te mucc ci shuzuz mucc ci illa itam mun a sukkandiku ci ki ñu nat ki ñu xadis bi ñu sukkandiku ci mokkalam ak tuxalam tey dañu jël alxadisu alxasan mooy xadis boo xam ne dafa rafet ci tënk dangay jàpp ni bépp charte buñ chartaal ci xadisu saxiix dañ koy chartaal ci xadisul xasan ba mu des benn xam nga xadisu saxiix dañ la wax ni adlun daabitun na nekk nit ku maanu waaye nit ku mën a mokkal ku mokkalam dëgër waaye xadisul xasan mooy koo xam ne maanu na mun na mokkal waaye nag mokkalam dëgërul noonu dafay faral di fàtte koo xam ne xafiifu dabti bu fekkee góoru sanad bi ñu nettali xadis bi daf ci am kenn koo xam ne xafifu dabt la koo xam ne mokkalam dafa oyof xadis boobu boobaa xadisul xasan lay nekk wala xasanul maarufu turkan wa gadat rijaaluhu laaka sahih boroom téere bi duñ jàngal tey al xadisul xasan ci tënk mun nga jàpp ni charte ñuy chartal ci xadisul saxiix yépp dañ koy chartal ci xadisul xasan boobu des benn muy taamul dabt xadisu saxiix moom dañuy chartaal kii nettali xadis bi na nekk koo xam ne paamul dabt la maanaam dafay nekk borom mokkal bu dëgër waaye nag bu fekkee dafa nekk xafiifu dabti su boobaa dañuy wax xadisam xasan la bu fekkee càllale bi jokk na ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam des fois nag nga gis lenn ci gars yi fii di jéem a wax ci fànn bi waaye fekk man ak ñoom ñooyam ci gàtt àll fekk xamuñu lu bari ci fànn bi nga gis ku ne diw xafifu dabti la ñu ne kon xadisam wérut waaye loolu juumte la xafifu dabti mooy koo xam ne xadisam dañ koy jël tuddee ko xasan ndéem càllale bi jokk na borom téere bi ne wala xasanul maarufu turkan waxadat wala xasan xadisul xasan mooy lan mooy al maarufu turkan koo xam ne xadisam yoon bi yoon buñ xam la masalan numéro un ñu ne la numéro un mooy kan mooy diw nit ku baax la nit ku maanu la nit ku nàngam la numéro de mooy kan numéro de mooy nangam mooy diw fii la juddoo fii la jàngee nangam nangam xam nañ ko numéro 3 ba ci matn bi walla itam nga ne yoon bu ñu xam mooy yoon bii boo ko nettee xaddasana an fulaan an fulaan an fulaan wala axbarani fulaan nangam nangam ba mu ak ci matn bi ñi nga xam ne yoon bii ñii waa Kuufa lañu wala ñii waa Basara lañu wala ñii waa euh, Makka lañu wala waa Medina mooy daal yoon bi goor ñi netali hadith bi yépp xam nañ len xam nañ fuñ dëkk xam nañ seen maandu fu mu tollu lolu may maarufu turqan yoon buñu xam waaye nag waxadat mujeena na goru hadithul hasan la ka sahih meluñu ni rijaalu hadithus Sahih. kon hadithul Hasan ci teunk yang koy xamé charte ñu chartal ci euh, as Sahih lepp dañ koy chartal bu mu des tamun babti moy ko xamne ne da fay deugar bu fekke mokkalam deugar na te charte yep dañ na pour ñu nangu hadith ñu na hadith bi sahih la bu fekkee nak mokkalam dafa oyof ñu na hadith bi moy hadithul Hasan. Fakna naa mun nañu yemalé fi insha allahu rabbi bu ñu ñëwaatee ci darsu bi di ñëw ñu defaat benn muraja bu gatt ci ñaari masalé yu ñu passé ñëw ci ñettal masalé bi insha Allah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu